cant maa mënoo ko def lii fekk amoo tawxiid. ab ab cant mënut a weesu jël sa lépp de delloo ko suñu borom. mbokk moom lu suñu borom fonk la. Maam eh, Cheikh Ibrahima Fall mën naa ne da doxal ci digganteem ak ay mbokkam waaye ci digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon yàlla. da ngay déggaat dimension Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne lépp lu mu wax wala jëf ju jëf boo alxuraan da nga koy a layal boo ñëw ci xadis da nga koy a layal aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani sa tur sa sant di leen di ziarat baax te ñu siiwul seen seen Jawhara TV topp seen émission bi di jàngale baal muridin naa ni tey ñoo dikkaat ak yéen ngir continuer téere ben doon def ci jàngale muy jëlul murid bi nga xam ni maam moo ko bind ngir murid yi cee mën a jariñu gën cee mën a xam nan lañuy liggéeye Serigne Touba xam naa ni bala ñoo gën a duggaat rek ci ci waxtaan bi incha allah ñu bàyyi su ñaari e, e, su ñaari jëwriñ yi ñu àndal ci liggéey bi tey di sëñ Salif Fall Ndiaye ak sëñ Aline Diop naa sëñ Saliou ñu bàyyi la nga nuyoo incha allah. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi seeraat mbokk taalibe bi ñëpp ñu àndaloon ci seen émission jàngale Baol Mouridiyya ci partie bu njëkk bi doonoon maam Cheikh Ibrahima Fall ak cant. Hmm. kon ñoo àndaat ak yéen ñëwaat ci beneen thème bi muy maam Cheikh Ibrahima Fall ak société. parce hmm. que yéen ci ànd ak yéen tey ñaan lépp loo xam ne nañ ko wax rek yal na doon luy jëriñ ñëpp incha allah ñu ngi seeraat suñu mbokk taalibe yi ñu bokkal jotaay bi tamit. Hmm. jërëjëf sëñ Saliou xanaa sëñ a bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi géran mbokk juddita mbokk taalibe yi ñuy teewuli yëpp ci seen chaîne Diawatoulahi ci seen émission jàngale Baol Mouridine mm-hmm. di amaan mbégte bu baax a baax ci teewaat ci jotaay bi ngir wéyal liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci Jazbul Murid mm-hmm. euh, di ziar sëñ ngeen bu baax di ziar euh, sëñ Saliou mm-hmm. ñaan suñu moom defoon ñu tawfeex baax nin ko nin amee yéene jàllale liggéey Cheikh boobu suñu boobu defal ñu ko ta di dollee ah. naat bu baax a baax tamit sëñ Mountakha Bachir Mbacké ak euh, sëñ am di Modou Mbène Fatou suñu toolam toog leen fay yàgg. numéro hmm. noonu. sëñ Gagne xam naa ñu ngi lay jox carte d'équipe. waaw jërëjëf sëñ Salif ak sëñ Aline comme ni nga ko waxee léegi rek nga xam ne moom lépp luñ wax rek ñu xam ni ndimbal suñu borom la daal. ñu hmm. doon xam-xam la daal. Hmm. waaye lépp lu ci baax rek dañ koy delloowaat ci suñu borom daal. waaw di di di ñaanal sëñ Mountakha rek mu yàgg bi lool ak sëñ Modou Mbène Euh, mu yàgg fi lool xalifa maam Serigne Fall ñaan suñu jëwriñ ci liggéey bi di daayira jawat la bari di sëñ Abdou Aziz mu sëñ Xaadim Awa Ba mu sëñ Baara mu yàgg fi lool tamit euh, xam naa ni comme ni ko sëñ Saali waxee rek émission bi passé danoo ñëwoon ci thème bi nga xam ne mooy sant xam ni émission yi fi jàngale si Jazbul Mouride moom am na ay parti yu bëri njëkkoon nañ fay def ay parties ànd kooku sëñ Massa Gueye ak sëñ Cheikh Mbeng mm. nga xamante ni jàkkaloon nañ fa ay parti yu bari foofu tamit ku ko bëgg a toppaat boo demee si seen YouTube jawat laa TV di nga fa gis incha allah ba bu mujj bi def rek mooy sant mm. xam ni non lañu continuer nak ci mm. téré bi dama ci yenen parti incha allah tey mm. ngir gën ci mëna jang ndax Cheikh ibrahim Fall kat de see jangale lu bari bari ndax du ko tuddee xëcc mouride yi demal leen ci liggéey sëriñ bi waaw kan mouride bi nga xamni bëgg na liggéey sëriñ bi bëgg na am gëreemal sëñ Tuubaa nako mag ñi amé won kan war na mëna jang téré mam cheikh ibrahim Fall bi ngir gëreem lool muy sàkku ci sëñ bi ngir mu xam fan lay jaar ba am ko ndax Serafal euh, dimbal nañ ci lu bëree bëri si téere boobu tey nag dañuy dikk ak yéen ci Serafal lu mu jàngale ci société mm-hmm. bu ñu duggee société nag mën naa am ay mm-hmm. sous-parties yi ñu ci jël nag mooy lu jëm ci wàllu euh, mbokk mm-hmm. ak lu jëm ci wàllu dëkkandoo xam ne Serafal jàngale na ci lu bari waaye wolof day wax tamit ni dëkkandoo bu yàgg mbokk la kon day mel ni ñaari euh, parties sous yoo xam ne am nañ liaison daal waaye tey dañuy balañ commencé ci mbokk daal jàng ci lan la Serafal jàngale ci mbokk waaye bala ñëw dikk ci téere Jazbul rek comme ni ko waxee saa su ne Faal kat sëriñam ba moom mën na ni mooy Sëriñ Tuubaa moo jàngale lépp waaye moom daa féetewoon jëf ji moom ñëpp ci jëf lañ ko xamee naa nga ni bàyyi suñu àll mu dikkal na ci lu suñu borom wax ci mbokk ak sëriñ beeg xadis yëpp daal bala ñëw dugg ci Seera Faal ko jàngale ci téere Jazbul Mouride incha allah. ndeysaan macha allah sëñ bi ñuy santaat bu baax a baax comme buñ jël see ci cosaan rek yaakaar naa mbokk moom maam lu suñu borom fonk la waaw ah, ginnaaw lu suñu borom fonk la nag li may faral di wax rek lépp lu suñu borom fonk jaadu na ñu ciy góorgóorlu baax di ci def suñu kéem kàttan mm-hmm. ndax dangay ngay dégg mu naan wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham mm-hmm. eh, na nañu nañu gëm yàlla sunu borom subhaanahu wa taala waaye tamit ñu bañ ci dagg mbokk maanaam ñuy fonk mbokk mm-hmm. kon boo day jar dañu dinañ taxaw ni lan mooy mbokk mbokk nag mënees na ko tënkee nii xëy na dégg ni mën na cee bëri waaye ki nga xamante ni dangaa bokk moom direct Ah, di tàmbalee ci ñi nga xamante ni da ngaa bokk ak ñoom direct mën nañ wax say waajur say mag waajur wala say say rakki waajur waa xeetu demee noonu nga xam ne comme ni ñu ko xamee rek mooy ñi nga xam ne day topp direct daal ci buñ ko mënee def benn tënk ba nga xamante ni manes na cee jàpp mhm. kon ñu xam ni loolooy loolooy mbokk ginnaaw suñu borom fonk nag nag tey digal na ñu fonk ko mhm. kon jaaru na kenn ku nekk ci ñun di ci góorgóorlu yonent bi sallallahu alayhi wa tamit maam digal nañu tamit ñu fonk ñu ñu ñu ñuy fonk mbokk di góorgóorlu di def suñu kéem kàttan mm-hmm. ndax bokk na ban koo laajee ni ko ci ñan lan war a dépenser li mu njëkk a wax mooy wari waali day ah, na mu tekki ne ñi nga xam te ni ñooy dëkkandoo yi mm-hmm. wala ñi nga xam ne ñooy mbokk yu jege ñi nga xam ne ñoo jege boo waxee wayjur wax mbokk kom ni ma ko waxee sànq ñi nga xam te ni say rakki wayjur lan wala say mag wala yu demee noonu comme ñu mm-hmm. toppee deret kon da nga déggee nit ki saa nekk ci entourage am war na di góorgóorlu maam di doxal kóllëre googu. Mm-hmm. tey bokk na ci nga xamante ni mooy bégal ñi nga xamante ni dañoo dëddu sax muy sa waaj wala xeej demee noon mooy di sàmm kóllëre gi nga xamante ni wàccoo nañ ko fi mm-hmm. rawatina ak ñi nga xamante ni bokk nañ ñoom mooy sama ngi bàyyi say rakk yaay xeej yu demee noonu mm-hmm. xam ni loolu bokk na ci nga xamante ni tamit day njariñ kon da nga ciy ni mbokk lu suñu borom fonk la tey digal na ñu fonk ko te sàmm ko di leen di ci def suñu kéem kàttan ci mboolem xeetu dimbal bu leen mën a dimbali mm. ngir sàmm kóllëre boobu ndax suñu borom tamit du ku ko fonk la naa mm. dina mën a taxawandi foofu ci xaarandi ba gën a mën a yaatal ci biir mbokk jërëjëf waay sëñ Aliou na solo lool leeral leeral nga bu baax a baax baat boobu di mbokk daal lan mooy mbokk ak ñan mooy ñan ñooy suñu mbokk daal mm. xam naa dañuy bàyyi Sëñ Saliou rek mu dikkal ñu si téere bi daal mu dugg si téere Jasbul Ma'ad. waaw bàyyi nga ñoo ngi hmm. santaat bu baax a baax waaye ci hmm. kàddu yi leer naa ñu wax dëgg yàlla hmm. te ni nga ko waxee it maanaam dama cee seetlu daa daa wutiwul dara ak ni ko ni ko Cheikh Ibrahima waxee day dëggal rek wax ji wax ji Sëñ Saliou Fall waxoon bi ñu ne ko dañoo dégg ñu ne Cheikh Ibrahima Fall mooy mooy alxuraan man loolu duma ko wax de waaye boo bëggee xam Cheikh Ibrahima faaw nga dem ci alxuraan te ko dëggal ndax boo xoolee ni mu ko ni mu ko waxee ci téere bi daa wutiwul dara ak ni nga ko indee boo xoolee ni mu tàmbalee moo ngi wax ni digal nañu bépp jullit mu mu fonk mbokk. Mm-hmm. muy bu bu nee fonk bokk mooy ni nga ko waxee rek da ngeen di ci mbokk lépp. Mm-hmm. lépp loo xam ne mën naa la boole ñu daal ba mm-hmm. ba mu doon sa mbokk. bi mu waxee mu daan ne eh, ndax fonk mbokk kat day tax nit dana am wérgu yaram. ba noppi ay méthodes yu bëree bëri dafay dindi ci ci ci ci ay njëriñal fonk mbokk la. loolu la ñu kenn ci téere bi. bi noppee daal ne waaye nag da ngeen moytu di weddi seen ay wajur. say wajur da ngeen da ngeen a war a jox cër. am foo leen teg ba yenn yi yenn yi. du jaarul sa diggante ak ñoom. Mhm. nga leen koy wax waaye ni mu valable tamit ci diggante yow ak say wajur say wajur tamit noonu la valable noonu la valable ci sa diggante ak yow. Mhm. ndax wajur kat moom sàmm la. Mhm. Eh, ginnaaw loolu it mu waxaat daal ne waaye nag seen ay wajur tamit na ngeen leen dimbali bu bax a baax. ci ñoom lu ñu nekk muy liggéey ñuy liggéey ba lépp luñ bëgg. waaye nag ci kaw ci kaw dimbali googu lépp lu ngeen leen dimbalee na yam ci loo xam ne suñu borom bëgg na ko. waaye say wajur tamit ak lu di nekk ak say lu di nekk. bu la ñu dimbali tamit bu mu xam ne suñu borom bëgg mm-hmm. lépp loo xam ne dañ koy def te suñu borom bëgg ko di dimbal gi ñu leen dimbali mooy wax leen dëgg ñu dellu siwaat mm-hmm. waaye foofu la ci am mm-hmm. bi mu noppee euh, mu lii mu wax li ko dëggal mooy suñu borom aaya bii mu wax daal ne innamal mu'minuuna ixwatun faasdiqoo bayna axawaykum wattaqullaaha la'allakum turhamuun daal ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a ngir mm-hmm. mbokk ngeen seen biir mm-hmm. kon na ngeen ni jàppalante mm-hmm. na ngeen fexe ba jàmm am seen biir da ngeen ragal yàlla nag bu ngeen ko defee da ngeen am yërmande suñu borom kon fii nag li ñu fa a déggee ndax suñu borom dane innamal mu'minuuna ixwa maanaam yéen nga xam ne da ngeen a kon li mu bëgg a wax mooy ni euh, ñi nga xam te dañoo gëm suñu borom ñoom it ay mbokk euh, maanaam mbokk kon mën nañoo ne yemul ci euh, ko xam ne xëy na moo la boole moom waaye ba ci ki nga xam ni yaa moom yéen a bopp li ngeen gëm yéen a bokk pas-pas sax ay mbokk ngeen te loolu it moom euh, maam Cheikh Ibrahima Fall mën naa ne da koo doxal ci digganteem ak euh, ay mbokkam waaye ci digganteem ak ñi nga xam ni ñoom la bokkaloon yàlla ñoom la bokkaloon Sëñ Tuubaa mm-hmm. boo xoolee bi mu mu bi mu ñëwee kër Sëñ Tuubaa euh, da ko daan doxal ba suñu daaru nga xam ne moom mbokkam lay mm-hmm. biir kër Sëñ Tuubaa seen seen seen seenam nekk ñoom ñaar mm-hmm. duñ doon dundal bu baax a baax seenam mbokk ko fonkoon ba bu doon wax ak suñu daaru Asan Njaay ci Cheikh Ibrahima daan ko sa mbokk mi loolu la ko doon wax. bis bu ñuy wax suñ suñ suñ daara Sane Ndiaye ba ba waaye maam Cheikh Ibrahima Fall noonu la ko fonkee woon. ba na ko defal ay ay yàgg na ko teral ci biir kër gi. bokkoon ci ñu a jaayante suñ tubaab. waaw waaw kay waaw kay loo xamante ni. Hmm. li la. Hmm. waaye loo xam ne da coobare suñu borom la. ndeysaan wér na waaye di jëf ba jiiree ko si yàlla. ndeysaan wér na wér na ak sa hmm. la demoon boo xoolee eh, ba maam Cheikh Ibrahima Fall mag ñi nga xam ne moo leen Mm-hmm. ndax daan leer ku nekk nit daan na jógee fu nekk ñëw ci moom di ngir ngir ut ngërëmal yàlla mm-hmm. waaye bu la yaree ba am fenn foo toll mm-hmm. danaan na dellul gi bok bokk ginnaaw defar na la ba gërëm la am na ci ñoo xam ne sax ay doomu buur lañu woon ah, am naa ci koo xam ne euh, maam buur la woon surtout la jor la woon waaye bi ko maam Sëriñ Fall yaree ba noppi ba gërëm ko nga xam ni lu ñuy wax chef de canton yooyu daa xewoon nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall dafa gis benn annonce bu ñu def gis chef de canton maam Cheikh da ko woo daal ne ko Euh, gërëm naa la nag waaye damaa bëgg nga dem euh, foofu ci chef de canton bi ngir liggéey fa. bi ko ko waxee sax da da bu doon dem ndax Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall moom suñu bi ñu ne ko noo xam ne boo xasee ba jaxasoo ak moom doo ko tàggu moom. Mm. bu doon dem waaye mu ne ko ah, dee di nga dem kat ndax nit nag day fokk mbokkam. mënoo mm. mënoo am lu ëpp say mbokk. Mm. kon na nga delluwaat noonu la doon yoree waa këram. noonu la noonu la doon dundee ak moom ak ay mbokkam lu mel ni waa Njare nga xam ne donte ñëwoon na ci Tëriñ Tuubaa sax. waaye bàyyi ko woon. te san si Moussa diggante moom ak ay rakam. Mm-hmm. ak ay mbokkam ñi xam ne ñoom la bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp. ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal njaay. daan dox diggante boobu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, bokk na ci ñi nga xam ne sax moom da koo gën a jàngal waa Kër Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. ndeysaan ay ci wax nañ bool. lu mat loo loo xam ne man na ay fukki ay fukki rakam. ci benn bool di di barkeelu. bu bu bu noppee daal lii ngeen lii gis man ma xëy def kat du ngeen ko gisee ci man ngeen koy mujjee def. boo xam ne dina toog lu mat fukki ci ay fukki bokk ak ñoom te boo xoolee hmm. defe naa li mu doon wax li mu doon hmm. ne kër kilifa boo dem eh, daanaka di nga gis ni ñu bëree bëri mën nañoo bokk waajur waaye ay xaajaloo day am seen biir hmm. kon jàngale bi Serigne Fall boobu defe naa tey jii lañ ko war a a mën a appliquer daal gën ci ngi tuwaat baax a baax ci kat bi incha allah am na am na solo lool lool sax moom leeral nga bu baax a baax Serigne nan la ko jàngale si téere bi comme ni nga ko waxee noonu si njare rek ma wax naa ne waa njare ba fa Serigne Fall jógee di dem ci sëñ Tuubaa ah. ndax daan wax jamono yi daan wax bu nit demee sëñ Tuubaa naan diw daa bàmba ji ah, waaw waaye waa Njare bi Serigne Fall jógee dem sëñ Tuubaa hmm. nee nan chef de canton yi ak gouverneur ñu fa ñëwoon di leen laaj impôt hmm. boobu Serigne Fall nekk daawoon di leen laaj hmm. ay Serigne ko ko waxee mu dellu siwaat fa ni leen léegi yéen ak ñëpp dama nekkoon seen biir moo taxoon ngeen ñàng mais bu ma demee sëñ Tuubaa seen ñàng ak lépp laa laa joxaale sëñ Bàmba léegi yéen ak ñëpp a yam am ah, loolu liggéey waaw da koy leeral seen mbokk mbokkono ak waa njare waaye tamit xam ne foofu bëroon na ay ñoo xam te ne ay doomi buur lañ waaye teewul da leen a dem xëcc leen ba dugal leen ci liggéey Sëñ Tuubaa waaye bu ñëwee tamit ci rakam jooju ji Sëñ Saliou Fall daar Daaru Xafoor xam ne tamit mën na ne bu ndee mbokk tamit du tey ñu tudd ko Sëñ Daaru Xafoor xam kii sëñ Salif Fall waaw am leeru sëñ Tuubaa ci moom la njëkk a feeñ ci la ko waxee Seera Fall demal seeta ko wala man dinaa dem Seera Fall dem mais ay tey ba Seera Fall demee ba am ngërëm sëñ Tuubaa ba mu demee jox boobu sëñ Tuubaa teewul moom tam daa ñëw bokk ci seex yi bokk ci ñuy liggéey sëñ Tuubaa moom tam ba am ngërëmal man Seera Fall am ngërëmal sëñ sëñ Tuubaa bi ñëpp daal waaw kan loolu daa doon benn liaison boo xam te ni am na seen diggante ak sëñ Salif Fall dem na te moom wax boo xoolee digganteem ak sëñ Tuubaa noonu la demee ndax sëñ Tuubaa moom noonu la fekkoon noonu la fonkoon ay mbokkam boo gisee bi muy jógee bi mu fiy jógee di dem ci tukki ba. Mhm. xam euh, ko si euh, si euh, dénk ko waram daaru. Mhm. waaye noonu la defoon ak Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. damaa bëgg sama mbokk yi ma fa bàyyil kat. bu baax ba Cheikh bi rek bi suñ tuwa bi suñ tuwa la taxawee ñu mel ne ñoom ñoom ñoom suñ Maamoor Jaar ku ci nekk defal na ko ne bi nga xam ne suñ Tuubaa jógee na fi Cheikh Ibrahima danañ jël addiya bu nga xam ne suñ Tuubaa ko dénkoon waaw moom daa amoon suñ Saliou maa cheikhul xadim maanaam ci lu maanaam lu mu jëf rek maanaam da ngay gis ni cheikh da koo jëf maanaam ci loolu ngay wax noonu bi nga xamante ni dem na ci tukki bi ba Cheikh Ibra gis nga liggéey bi ma amee woon naaw bi sëriñ bi demee ci tukki bi mm-hmm. ni mu taxawee woon waaye tamit loolu da nga koy misaal comme sëñ nga mi ngi tudd sàng sëñ Saliou Fall xam ne mën mane manee su ta tudd mbokk di waxtaan Cheikh Ibra te doo ko tudd mm. nga xam te ni nii bi ko yi koy feeñu feeñu bi ko sëriñ bi di feeñu ci biñ nekkee Kajoor mm. nga xam te biñ demee ba nga xamante ni nee na ko sa sëriñ ba ngay seetkat ñu ngi penk mm. kon Cheikh Ibrahima ci fonk mbokk fonk ay waajur li ñu doon wax sànq maam boobu ba tey dafay dikkaat lan la wax sëñ Saliou Fall mooy teel ma sama ndey ak mbokk yi ah, ma dem wari sëñ Bàmb mu ko gisee ñëw goneel dee nga xam ne loolu da nga ciy dégg ni mi ngi am lu muy wut waaye teewul mi ngi bàyyi xel ndeyam mi ngi bàyyi xel mbokkam mm-hmm. kon nit ki di fekk yaa ngi am maam ci ñii la sës ñi nga am boo leen fi bàyyi di seeti leneen amul njariñ hmm. amul njariñ maam baaxal sa kër ba noppi après nga baax ci biti hmm. waaye jariñul dara ngay baax ci biti boo ñëwee sa kër maam gën fee yées hmm. kon yaakaar naa xeetu jàngale boobu lañu war a jàngale ci Cheikh fa Fall li nga xam ne moom daan dundeem ci ñi ko jege nga xam te ni loolu mooy li nga xam te ni moom la war a def tey ndigalu suñu moom subhaanahu wa li may wax rek mooy saa su nekk boo ko dee nattee maam ku ko xamul moo naan kii gëmul yàlla wala deful wala deful li mhm. waaye degré bi mu nekkoon maanaam degré bu kawee kawee la ci gëm borom subhaanahu wa taala donc moo tax xeetu jàngat yooyu day jar ñu koy taajaat di ci waxtaan di xool nan lañ ci mën a jàngate ngir ci suñu jamono ci mhm. ñu ciy mën a jëfandikoo yaakaar naa loolu mooy njariñ bi kon xam naa dama doon sof bi sëñ Saliou wax sëñ Saliou nu nga ko waxee moom loolu moom lenn nañ ne moom si ñooñ ñooñ nga tudd rek ñu sëñ Ahmadou Rokhaya Fall sama sëñ Nabou Ndiaye sëñ mhm. Saliou Fall mën na ñooñ ay daal te ay mbokkam yooyu danoo jëf ci moom lu tax mu mel nii. ndax boo demee ci fils d'un enseignement bi tamit dañ ni sëñ Ahmadou Roqee moom daa yoroon daara mhm. daan jàngal alxuraan. Cheikh foofu la jàngee alxuraan. Mhm. waaw loolu loolu lañ ci wax. kan mën nañ moom ci Cheikh Fall ci biir daara la juddoo. Mhm. kan bu demee ba euh, ñi am ñoo xam te ni dañoo dem ba jamono ñu wax naan Cheikh Fall am na xam-xam wala amul xam-xam. ñoom ñoo amul xam-xam. fekk danoo réer daa am ñoom ñoo réer. ndax ku juddoo ci daara alxuraan sa waajur di doon jàngal alxuraan kan moom yow pegg nga xam-xam yëpp bu ñëwee soxna Seynab Ndiaye tam daana wax nee naan danaan jàngal alxuraan bu koy jàngale moom it waaw so moom tamit daana wax naan sëñ Jago Jëb day netti xisa bu yem naan bu gisaan sëñ Tuubaa rek danaan danaan kii danaan tuur ay rangoñ so sëñ Tuubaa wax na ko de ne ana nday kii ramba jaam ñi rek xamal ne yow la ne woo waaw xam te ñoom tamit danoo jëf ba am ngërëma sëñ Tuubaa mm-hmm. waajur waajuram yooyu noonu xam naa ni dañuy eh, bàyyi sëñ àll rek mu wéyal ci njariña fonk mbokk mm-hmm. loolu ci mën a baaxee rek ñu gën cee mën a jariñ mm-hmm. yaakaar naa comme ni ma ko waxee léegi bu ñëwee ci njëriñal fonk mbokk mooy li ma wax rek boo xoolee kii fonk mbokk maam ci ni mu doon doxalee rek dangay ngay xool suitam da ngay xam ne kii am na fu mu jaar mm-hmm. kon rawatina lool ci fonk wayjur fonk wayjur fonk fonk ñi nga xamante ni ñoo la jege mooy mbokk li mm-hmm. ndax yaakaar naa lu la sunu borom fonk lool sunu borom nag lépp lum la digal boo ko defee am na loo ciy gis mm-hmm. boo ko deful tamit am na loo ciy gis kon bokk na ci li nga xamante ni mënees na koy jàngee ni ci fonk mbok mbokk yan njariñ la am yan bi sallallahu alayhi nga xamante ni comme ni nga ko waxee woon sànq digal nañu ñu def ko waaye tamit ci nee na maam nit ki li fekk mi ngi fonk mbokkam suñu borom subhaanahu maam mën na faa jaara wërsëgam mën na cee gën a yokk waaye tamit mm. fanam tamit mën na cee gën a guddee mm. wërsëg mën na cee gën a yokk fanam naan fan yenn saa dañ naan nit ki dafa gudd fan mm-hmm. waaye mën naa dund at yu néew daal di gudd fan ñu jàppee ne ku gudd fan la mooy dafa barke mooy at googu noonu mu dund at yooyu mu dund maanaam lu mu néew néew néew li mu ci waroon def mi ngi ciy def mi ko ciy def lim suñ Baara Mbacke waaw mi ngi ko ñu ñëpp waaw xam ne bu ñuy lim at yi day néew lool waaye kii da xam ne kii dund gu am njariñ la dund doon mm. loolu nag maam li feeg yaa ngi koy def rek maam dund ni kii dafa gàtt fan wala dafa déedéet wërsëg tamit noonu mm. maam li feeg nit ki yaa ngi am ñi ngi sa ndey say mbokk ñi la jege li ngay am ngay bokk ak ñoom sunu suñu borom maam saa su ne day loolu bokk na ci njariñi mooy day gën a yaatal li nga xamante ni yaa ngi koy am mm-hmm. woon na ma ma moo ngi doon wax ko koo xam ne loo am say wajur say wajur mm-hmm. doo gudd fan kon loolu day tegtale kon da ngay déggaat dimension Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne lépp lu mu wax kàddoom gu mu wax wala jëf ju mu jëf alquran boo dem ci alquran da nga koy mën a layal boo ñëwee ci xadis da nga koy mën a layal kon kooku dafa nekkoon ka nga xamante ni nii ku jar bàyyi xel la ku ko xamul nag mooy wax waaye fa mu nekkoon maam fu kawe la rek ni mu koy faralee di wax donc yaakaar naa buñ dee tënk ci njariñ yi nga xam te ni fonk mbokk war na ko mm. am na ko mënees na cay lim yooyu mm. xam ni lii suñu woon da koo fonk rek ñu fonk rek loolu doy na mm. daf ñu koo digal ñu fonk ko rek ñu fonk rek loolu doy leer na nañ ci alek ci njariñ li mu jàngee nañ ci lu bari euh, buñ ñëwee tamit comme ni ko waxee rek dañuy wala ñoo wax sax sëñ Baara Mbacke soxna Mariam Konte ak mm-hmm. soxna jaar moo jiitu xamante ni moom lu mu dund bariwul ay teewul jaayante na jaayante gu rëy goo xamante ni bu am fii sëñ Tuubaa euh, ak loo xamante ni kenn amu ko fi daal waaw ca dund na fi dund koo xamante ni néew na lool waaw loolu loolu loolu da koy da koy tegtale xamante ni kon mbokk moom jàngee nañ ci lu bari ci li ngeen wax moom tënk na lépp lépp xam naa dañuy ñëw ci beneen suupaate bi rek mooy dëkkandoo yi mooy voisins yi xamante ni wolof day wax naan dëkkandoo bu yàgg mbokk la mm-hmm. kan day am liaison am na si ñaar yooyu mm-hmm. waaye Seex tamit jàngale na ci Eh, lan mooy kii lan mooy lan mooy dëkkandoo. Mm-hmm. naa si àll dañ lay bàyyi joxaat kàddu gi rek. Mm-hmm. nga dëkkal ni ci ci ci ci ci ci baat boobu di dëkkandoo daal. ndeysaan waaw ci ngeen wax na dëkk kay. xam naa mooy ni ma koy faral di wax comme ni ko waxee rek. Eh, mbokk moom naan nga mooy mën na ni mën naa doon suite dëkkandoo ndax boo demee bay leeral dëkkandoo. Mm-hmm. maam dañ ci am benn cëslaay ci ci ci mbokk. loolu mooy lan sunu borom subhaanahu wa taala daf ñuy wax. maam ñu ñu ragal ko waaye tamit di rafetal di jéeme suñuy suñuy suñuy waajur hmm. maam ginnaaw bi mu la bi mu bi mu la waxee loolu wala aqrabiina la la wax maam jege ñaale nga xam te ni dala ci jubloo jubloo leeral ni yow kat ginnaaw boo fonkee boo boo fonkee say say say waajur hmm. maam say mbokk tamit na nga leen na leen na leen fonk hmm. ginnaaw boo fonkee say mbokk nag day jaal ba ci say dëkkandoo maam day jàll ba ci say dëkkandoo nga xam ne dëkkandoo ci loolu de ci déggee ni mënees na koo xaaj nga xam ne te lépp day daal mën naa am benn euh, benn lie liaison ba xam ne def na ko ci mbokk mhm. mooy lan mooy mënees na koo xaaj ñetti xaaj maam ci bu ñëwee ci dëkkandoo kon kon boo ko dee définir da ki nga dëkkal mhm. waaye ci nin koo jàngee buñ toppee tegtal yi mooy day am ñetti xaaj mooy tey jii ki nga dëkkal te bokku leen diine mhm. moo kook benn xàq moo dox ci yéen moo dox seen biir moo mooy xàqu dëkk rek nga mënees na cee misaal euh, yon bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee Madina nga xam te ni di wala bi mu nekkee màkk ak yéeféer xam ni xaq benn xaq moo dox seen diggante hmm. te it mën ngaa beneen beneen xaaj bi mooy ki nga xamante ni dangaa dëkk ak moom ba noppi ngeen bokk deret hmm. mooy ngeen bokk deret nga xam ne loolu mën naa am ñaar ñaari xaq mooy yéen a dëkk hmm. te yéen bokk deret kon liaison bi war day gën a fort di dem bokkut ak ki xam ne dangaa dëkk ak moom bokkook moom deret dangaa dëkk ak moom rek te bokkook moom diine léegi ñetteel bi mooy ki nga xamante ni nag dangaa dëkk ak moom Euh, ngeen bokk diine ngeen bokk deret hmm. kon nga xam ni loolu saa su nekk liaison bi li ñu lié ak ñoom day day day gën a fort kon loolu dañ ciy dégg ne ni leen war a fonke hmm. mooy dëkkandoo nit ki boo dëkkee moom saa su nekk war nga di góor góorgóorlu di moytu ni ko Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall jàngalee rek di bañ leen sonal di leen bañ teg yenn coono yi di leen bañ tànka loolu xëy na xëy na loolu duñ ci dugg ndax xëy na sëñ Saliou dina ko leeral hmm. waaye liñ ci jubloo wax rek ci fonk ki ji fonk gi ñu leen a Euh, wér na ci xadis ni maam dañoo mus a ñëw ci moom maam di ko ni ko ni diwre maam kuy julli la ak a woor mooy def jay jullee ak koor yu bari waaye waaye fonkul dëkkandoo mu ni kooku ci ci nit yu sawaray la bokk maam ni nga xamante ñu ni ko diwre daanaka day day du julli waaye du woor wala du def xeetu jaamu yàlla yu yu yu mel noonu waaye tamit ku fonk dëkkandoo mu ni kooku ci waa aljana la bokk kon da nga ciy dégg ni ñi nga xamante ni nii suñu borom digal na digal nañu ñu fonk den maam kenn ku nekk ku nekk daa am loo gëm. Mhm. te kenn ku nekk daa am ci looy dox. Mhm. maam man war naa di jëf li nga xamante ni nii moom laay jëf sans pour autant ma gàllankoor kii nga xamante ni moom laa dëkkal te bokk ma ak diine bokk ma ak moom diine. Mhm. xam ni loolu jullit bi da ko war di bàyyi bàyyi xel bu baax a baax nga xam suñu borom foofu la ñu canaliser. mooy saa su nekk ñuy tënku ci nga xamante ni ci lañ war a tënku bañ a lor suñu bokk. kon yaakaar naa buñ ko mënee tënk ci noonu rek nga xam ni kon tënk ni kon dëkkandoo mooy ki nga xam ne dañ ko dëkk ak moom ñu mënees ko ne koo xaaj ginnaaw xaaj nañ ko ñetti xaaj nag mooy kenn ku nekk am na xàq yu la war ci moom mm-hmm. xëy na xàq yooyu mënees na cee bañ a dugg waaye mënees na bàyyi ba ci biir jotaay bi xëy na ko gën a leeral ak ni ñu soxee leer na de moom koy ni ko expliqué ji dëkkandoo moom leer na nañ mm-hmm. dëkkandoo moom loolu day wane am na ay àq mm-hmm. yoo man mën ko amee àq ba euh, euh, ba ba ba jëlee ci loru daal comme ni ko waxee ci yonent bi sallallahu alayhi naan dañuy ñëw ci Sëñ Saliou rek ñëw ci Jazbul Murid rek ñu ko Cheikh Ibra jàngale ci biir téere bi lan la wax ci lan mooy dëkkandoo daal. Ah, waaw man naa waaw ñu dikkaat ci rek Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moo la wax ci dëkkandoo. Euh, ci téere bi. Hmm. ni ko waxee fi mu tàmbalee mu ngi wax ni euh, dañoo digal bépp bépp jullit mu fonk ay dëkkandoo. Hmm. Euh, fexe ba di ci diggante moom ak ak ay ay dëkkandoo mu ciy def lu baax. Hmm. daan ne te bépp jullit nag na nga fexe ba say dëkkandoo. bu len di wax lu metti sa cadeau bo xamni yang koy jëmale yang koy yëkëti diko ko jëmale ci ñoom da doon cadeau gu rafet hmm, hmm. bo xamni ne dana defar hmm, dal di ne say dëkkandoo nak bo xamé say ay jëf yu ñaaw yo xamni dañ ko def na nga leen ko neubul na nga leen sural sa diggante ak say dëkkandoo eh, lim ci tegaat dal ne bu len di jëw bu len di jëw seen ay dëkkandoo bu len len di weddi ndax lu melni ni kat eh, day bëri eh, da ci lu bëree bëri loo xam ne moo koy waral. Mhm. Euh, ndax euh, boo boo gisee problème yu bëree bëri ak problème yu bëree bëri li koy waral mooy werante. Mhm. te loolu lépp ci ay wet lay jógee. Mhm. moo tax mu ne na ngeen maytu di euh, weddi seen ay dëkkandoo. waaye nag bu leen leen tànqal say na nga fexe ba ndax yéen tànqal yi bu yàggee da doon àq. te dafa diis. waaye li mu ci tegaat mu ne say nag bul bu leen leen ñee ci li nga xam ne suñu borom da leen may lépp loo xam ne sa borom sa borom. da ko mooy say dëkkandoo lu mel ni ceralu àdduna na nga leen ko yéene waaye bu leen ci ñëwee ba bu leen ko iñaane la mm, bu leen ko iñaane lépp loo xam ne sa borom da koo jël may ko say dëkkandoo bu leen ko iñaane na nga leen li mu ci tegaat daal di ne bu bo saa boo xamee ne dañoo soxla nag mm. na nga mm. leen taxaw bu leen si daal mu ne eh, lu mel ni asaka wala lu mel ni ndimbal lu mu ci munti doom na nga leen ko defal Mm-hmm. bu dee loo xam ne dafa jëm ci defar seen ay dëkkuwaay mm-hmm. seen ay kër bu yàquwee nga mën leen ci dimbali mm-hmm. na nga leen ci dimbali li mu ci tegaat daal ne waaye na nga fexe nag ba yewet sa kër na ko ubbi ba képp koo xam ni romb na fa rek mën faa dugg maanaam bul tëju la ci mën te bëgg wax euh, bu boo dëkkee ay nit bul tëju mel ni da ngeen a dëkku na nga fexe ba ubbi sa kanam waaye ubbi sa kër euh, ba képp koo xam ne dëkk njàng moom rek dana sañ ñëw dugg jéem a jàmm sante yow leneen leen ci wax daan ne waaye nag bu ñu ñëwee tamit di leen seet na leen ni diggal ay digle yu baax yoo xam ne di leen ni jëmale ci yàlla mm-hmm. kon say dëkkandoo tamit euh, da ngaa da ngaa war a fexe ba li lay boole ak mm-hmm. mooy yàlla suñu borom mm-hmm. li li lay boole ak ñoom amul leen loo xam ne da ciy génn sàkku nga demal suñu borom noonu la la ko diglee euh, def naa foofu la jéem ci téere mi waaye li ñu ci mën a jàngee mooy ni li li mu bëgg wax ci ab mooy nit boo amee ñoom dëkkal mhm. na nga fexe ba bu bu leen tànkal mhm. na nga leen dimbali mhm. leen dañoo solo ndimbal waaye na nga ubbi sa bopp ubbi sa kër ba mu mel ni yéen ñëpp ay bokk ngeen rek yéen ñëpp benn ngeen day dal wàcc li nga waxoon rek ne dëkkandoo bu yàgg moom mbokk la léegi da ci loo xam ne nag moom euh, jéem ubbi sa bopp jéem a booloo moo moo koy mën a waral loolu nag tamit euh, bu ma ci diggaatee rek da daa doon daa doon loo xam ne moom da ko dëggal ci ay dëkkandoo ndax xam nga wax neex na waaye tamit euh, balaa mu gën a neex nga li ngay wax nga jëfe ko hmm. ba képp képp koo xam ne dégg nga li nga wax rek bu xoolee say jëf xam ne benn la euh, boo xoolee moom tamit bi mu nekkee ndar ak njaareem yëpp noonu la fa nekk woon ak ay doo hmm. boo dégg yaa ngi yaa ngi dégg sëñ Sabiir di wax ni eh, Cheikh Ibrahima Fall bu mu saan xëy këram ñëpp day ñëw rajo Jolof muy xale yeeg mag ñëpp day ñëw rajo Jolof waaw loolu nag ni mu doxalee ak ñoom moo ko waral mm-hmm. daan na def di di ubbi lu mel ne ay GIE mm-hmm. ñu ciy liggéey mm-hmm. eh, lépp ngir dimbali leen ci dimbal googu muy waxaat maanaam lépp loo xam ne da ko digle ci téye daa doon lu mu jëfee daan na leen boole ñuy ñuy liggéey fexe ba képp koo xam ne amoo liggéey ku lay dimbali nit ñi daan na ñëw tamit këram di xëy di nag ngir di wut ndimbal wér na loolu daan na ko def ak ñoom. te yemu ci ak ñoom da ko doon def da ko doon def tamit ay ay mbokk di ko def tamit di ko a ci xale yi. Mm-hmm. ndax euh, dégg naa bu mu musaan romb xale sax bu mu musaan romb xale yi sax day taxaw di jàmm seen ak ñoom. Mm-hmm. ba mu jigéen da ngay defee ay moroom lay wax. wér na moo moo moo demee naa moo waral moo kuy romb xale te te ñuy wax da ngaa xamul rek. Mm-hmm. ndax xale moom boo léegi moo fiy des. wér na loolu daan na ko jëflante ci ci diggante ak ay ay dëkkandoo. waaye loolu tamit defe naa moo tax. ba ci liggéeyu raay bi wala beneen liggéey bu mu nekk rek. Mhm. mbooloo mu bëri bii mu am loolu moo ko may. ba waral suñu tubaab bi saa yu wootee ab liggéey wala suñu suwaabake su wootee ab liggéey rek mu am mbooloo mu bëri moom eh, mu nga xam ne dafa jox suñu tubaab ndax am na noo xam ne boo ko doxalee woon ak ay dëkkandoom mhm. duñ ko wóosi. duñ ko wóosi bëri na ay taalibe suñu tubaab yoo xam ne Serigne Fall lañ dëkkaloon mhm. waaye ni mu mel ñu ñëw di ko seet si mu leen woon yàlla moo tax ñu dem ba jokk ci moom ba saa su ba suñ tubaab saa soxla may def rek fa loolu tamit euh, tubaab bi dem nañ ci sax ba ci archive yi ñu wax naan euh, il faut rendre justice à Cheikh Ibra Fall euh, principal compagnon de du fondateur mm. dañ ne qui en vrai est le vrai fondateur Euh, qui d'un point de vue sociologique est le, est le vrai fondateur mm-hmm. euh, na mën nañoo ne mooy fondateur yoonu Mouride. Mm-hmm. waaye loolu lépp waral mooy euh, ni mu doon ak société bi. ñu mm-hmm. ko waraloon loolu moo waral muy woo nit ñi ba nit ñi bëri di gën a yaatal yoonu murid. loolu lépp nag jë mën nañu jëfee ak jëfandoo bi. ba mu nekkee ndar tamit bu ko tubaab bi génnee. waaw ah. lépp ko jaaral loolu lépp teewul. wér na ah. gëm lu mu gëm rek. waaye tamit bu loolu sax bala ñoo luy gën a leeral sax mooy bala ñoo dugg ci kii bi lu waral téere bi. Ah. waaw muy ma yaaro jim ak démb yëmbu jóg. waaw ndax danoo bokkoon fu mu dëkk. Hmm. ñoom da koy diingaat. loolu tax na jëm téere bi. waaw te diingaat gu mu doon diingaat loolu doon tontu. waaw bàyyi leen suñu rëy gi nekkee. waaw di dem waaw di ngërëmal yàlla mais loolu day dikkaat ci lu waral ji bind téere bi mm-hmm. dëkkandoo ndax ñoom kat danoo gis Serap Fall ñëw rek yor beneen doxalin ñoom au ñu xam ne kii seen dëkkandoo la mm-hmm. nan xool nan lay doxalee ñu jéem a jàng ci li muy doxalee jëm ko poser ay a mm-hmm. rek ñu koy dingat moom gën leen a xam ni moom kat moo leen gën a xam yàlla waaw mais dana xuul fa nekk mu nekk nag lan àggugul naa si Aliou waaw dañ lay bàyyi tamit boo kiilee nga wéyal ci dernier dëggandoo rek ñu mm. téye foofu incha allah. jaajëf sëñ bi am xam naa ma sofee ci li ngeen doon wax rek ci Maam Cheikh Ibra Fall ci ni doon jëfee ci ni ko jàngalee atam noonu la ko doon jëfee. Mm-hmm. yi nga xamante ni moom la war a fonke suñuy dëkkandoo ni leen war dee dimbalee ci mbooleem liggéey yi nga xamante ni nii ñu ngi koy def. Mm-hmm. ubbil leen suñu bopp nga xam ne sëñ bi looloy nit. te looloy dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ni ci ndar gi nga xamante ni yaa ngi koy wax rek xam ni yenn saa daan dajale taalibe ñi nga xam dañ daan wër ci mbedd ndar di ko di ko maam di ko du set setal nga xam ni damay dégg sëñ Ndiaga Diop naan moom mooy le set setal ah. Cheikh Ibrahima Fall xam ne loolu lan nga ciy déggee mooy lim la jàngale lay jëfe nga xam ni waa Ndar dañ daan wax ni maam dofi dee ñoo fi ñëw nga xam ne taal yi Cheikh yi daan wax mm-hmm. nee na dañ naan euh, ñoom dañuy ñëw bale mbedd mi ba set buñ paree ni àddi seen sëriñ boobu xam ne noonu maam neewul ni ñoom lañ koo defal waaye danga xam ne lii digleeg mm-hmm. sunu borom na dañ ko war a fonk mm-hmm. maam kon loolu da nga ciy ni Baye Fall nekkul ni foo toog lun ni lun ni lii maanaam nit ki war koo def rek nga jug ni yaa koy def ah, déedéet exemple nga war a doon ah. maanaam lii sëñ sëñ moon Moustapha Fall di wax naan Baye Fall mooy kan mu ne Baye Fall mooy ka nga xamante ni nii maanaam foo jëm ñëpp yaakaar yàkkamti nga ñëw maanaam foo jëm ñëpp dañuy dañuy yàkkamti nga ye nga yegg si foo jugee tamit foo jugee tamit noonu dañ lay namm lool mm-hmm. kon loolooy nit ki Baye Fall lool la war a mën a dund nga xam ni kon Cheikh Ibrahima Fall maam yaakaar naa vision boobu nga xamante ni amoon na ko ci nga xamante ni moom lañ war a jëfe maam dox ak suñuy dikk dëkkandoo nga xam ne yoonu sallallahu alayhi wa sallam danaan man kaan yuminu billahi wal yawmil axiri mhm. nga xamante ni nii gëm na yàlla ak yawmal am maam nay teral dëkkandoom mhm. kon loolu da si dégg ci teral gi nga xam ne kon moom loolu la daan dund dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. ni ma koy faralee di wax rek lenn lu ci nekk xam nga digle suñu borom maam li feeg koy def rek da mën naa ni loolu mooy tawféex li hmm. mooy la cay la li ma doon wax li ma doon wax sànq rek mooy saa soo jëfee digle suñu borom lenn nekk am na ci am na lu mu la dikk hmm. waaye saa soo digalee dara defoo ko tamit am na la cay la cay topp hmm. kon dañ ciy déggee ni maam Cheikh Fall ci vision boobu noonu la daan la daan dox tey ba ci ay kàddoom sax da ko ci dégg da ngay dégg maam boo nekkee ci bërëb maam mu tilim maam nga wàcc nga wàcc ko noonu maam yow mu ni yow feeñ na mm. waaye tam boo dee xaar kenn tamit sag mata di feeñ mm. kon ñun ñooy war a liggéey li nga xam ne ñoom la ñuy dëkk ñoom lañ dëkkandoo li nga xam dañ leen bu nekk mm. newul ni dama naan yow fii bokk fii nga bokk déedéet maanaam dañuy def te yàlla tax ñu xam ne lii maanaam borom moo tax ñu koy def waaw ginnaaw suñu borom moo tax ñu koy def nag tey ndigal lu ñu jox ñu fonk lii bañ leen sonal ci yenn lu leen mën a jàppale ñu jàppale ndax jullit kat Euh, noonu loolu la war a mën a mën a mën a jëriñ moroomam mm-hmm. mën naa jéggi foofu sax ñu naan jullit ndax sang maa ngi doon leeral ci wàllu wàllu euh, xaaj yi nga xamante ni nit ki nga xamante ni dëkk maam kaji yi xaaj dëkkandoo am ci mm-hmm. mboolem xàq yeeg demee noonu mm-hmm. kon yaakaar nañ ne daal ci buñ dee wax fonk dëkkandoo mooy yaakaar naa wax naa ko sànq bokk na ci nga xamante ni nii luy luy dolli nit ki ay xéewal la bokk na ci nga xamante ni nii luy dolli nit ki ak barke la te bu weesoo lépp rek maam ndigaluk suñu borom subhaanahu wa taala la man damay faral di wax ni bu ma ko dee tënk rek mooy jëfe ndigal rek daa ëpp lépp daa ëpp lépp njariñ moom mu leer ni la nga xam ne lii suñu borom moo ko digal nga jëf ko nga jëf ko rek man sëñ bi loolu rek dafa dafa dafa dafa dafa kawe daal mm-hmm. te boo xoolee Cheikh Ibrahima Fall foofu la nekkoon lenn lu nekk saa soo ko toppee moo xam lu suñu borom digle moo xam ni sëriñ bi daan dox boo xoolee da ngay gis ni ci loolu la nekkoon kon moom yaakaar naa mooy exemple bi ñuy faral di wax rek mooy exemple type bi nga xamante ni ci moom lañ war a sukkandiku pour maanaam Euh, dox suñu digganteeg sëriñ bi maam jëm ci sëriñ bi waaye moo jëm ci sëriñ bi nag moo jëm ci sa borom subhaanahu wa taala ndax li suñu borom digle rek moom la lay digal yaakaar naa mënees naa taxawandi foofu ci ci wàllu dëkkandoo gi yoon na comme fi nga tëjee rek suñu àll kon loolu dañ wax naan suñ bàmba dëkk la Ibra Fall maa yoon loolu leer naan dañuy tëjee foofu rek mm. on dañuy jàng nañ ci lu am solo ci wàllu mbokk ak wàllu dëkkandoo mm. naa ni dañuy dañuy dañuy dañuy yemandi foofu noonu rek incha allah baay eh. bàyyi sëñ Saliou sa kàddu gi nga tàggatoo incha allah maa ngi ñu ngi lay santaat bu baax a baax tey sant suñu àlla direct ci amoon na solo lool ñu tuub baax a baax ci lépp loo xam ne daa doon lu dëng rek ñoo xam ne suñu maradi la mm-hmm. la ci marit parce que ndimbalu rek waaw yàlla na jëriñ ñëpp it mm-hmm. wax ñëpp rek lépp lu nga xam ne wax nañ ko fi muy ay ay ay ndigalal Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. nañ ko jéem a topp rek xam buñ ko toppee nañ jëriñ muy suñu diggante suñu li li si ñebe Sakor di wax ni nit moom boo koy topp da ngay da da ngay nangoo roy. Mm-hmm. kon ginnaaw a la ñuy topp lépp la nga xam ne mu ngi koy jàngal rek dañ ko jéem a mm-hmm. santaat bu baax a baax. jërëjëf santaat bu baax sëñ Gane di santaat mboolem mbokk yi ñuy teewlu yëpp. di tubaab bu baax a baax te ni ko sëñ Saliou waxee rek. maam yitte ji moo doonoon dem xam-xam du xam-xam bi du dara daal waaw yitte ji moo doon am yéene ñu jariñu ci Cheikh Ibrahima Fall rek mm-hmm. tubaab bu baax lépp nga xamante ni lii wax nañ ko ci sa duniya ñu ngi ko yëbal suñu borom subhanahu wa taala bu baax defal ñu dégg ak topp eh, defal ñu ak dégg-dégg daal bañ man gën di mën a roy yi Cheikh amiin amiin sëñ jërëjëf sëñ ak sëñ Salim am na solo lool ci li ñu leeral ci wàllu mbokk ak dëkkandoo jëlee wàllu mbokk moom mënoo jël exemple comme ni ñu ko rek ci ay waajuram suñu Ahmadou Roqee Fall am na Seynab Ndiaye suñu Saliou Fall ñoom ay mbokkam kon loolu doy na si exemple daal bu ñëwee si dëkkandoo tamit mënoo jël exemple yu bëri ba mu nekkee Ndar ba euh, ak ba nekkee Njaareem surtout ba nekkee Njaareem sax am dani ñëwuñu si waaye amoon na benn liaison amoon ci mag ñu nekkoon mag ñi xam ne dañoo demoon ba am gërëma sëñ Tuubaa ñooñu ñëpp ku sa morom doom waaw ca bokkoo ñu daara mais dafa rafet li nga doon ñu taxe foofu njaariñ ci sëñ Tuubaa léegi ba mu ngërëm sëñ Tuubaa mais ku ne jàppee sa bopp sa morom ba ku ne tuddee sa morom doom man ci ñu bëree bëri bëri ci mag ñi eh. waaw bu dee lim moom du fi jógee ñii doom sëñ na ni ñooyam hmm. waaw gis ngeen ay sëñ Fall yu bëri yoo xam ne ay ay seex sëñ Tuubaa ñoo waaw ñoo ko tuddee ak sëñ mën na mais nag neen daal eh. sëñ Mourou Moussa ñu nekk noonu ak doomi sëñ Tuubaa ak ñeneen ak ak seex yi daal hmm. waaw xam naa ni luñ ci jànge moo am na solo lool lool lool ci wàllum mbokk ak wàllu dëkkandoo xam naa dañuy tëjee foofu na émission bi rek di santaat euh, sëñ Saliou bu baax a baax ak sëñ Alioune di ziaraat bu baax a baax mbokk taalibe doon suivre ci Diawartoulah TV si seen émission bi di jàngale Baal Mouridine ci tey thème bii ñu doon waxtaanee li muy société ci ay suupaate yi mooy mbokk ak dëkkandoo xam naa ni euh, ben bëggee topp émission yi rek mën ngeen koo suivre si seen seen Diawartoulah TV jot nañ ci amal ay émission yu bëree bëri xam naa ñoo ngi leen di santaat bu baax a baax comme rek lépp lu ci baax rek ñu xam ne ndimbal suñu borom la mm-hmm. kàddu yi lépp lu ci xaw kii rek ñoo xam ni mata dig doomu aadama rek jër ngeen jëf ya wabdu bil furqani rabbi al mu'in